fas yéene ñëw yéen ci jataay yi nga xam ne mbokk yi baaxoo nañ koo am ak yéen ci ajjuma bu nekk di ñëw tey di ci wuutu yenn mbokk yi sunu kemtalaay kàttan xam naa ne kàddu yi nga xam ne moom lañ bëgg a yëkkati tey fi ñu koy jëmale rek mooy ci li nga xam ne moom mooy xew-xewu jamono ku ne xew-xewu jamono nag xam ne kuy topp barabu jokkoowukaay yi moo xam ci internet yi la wala whatsapp yi wala youtube la wala lu man di doon wala télévision yi danga gis wala nga yëg ne am na xew-xew bu am te mooy ay nataal yoo xam ne nataal yu doy waar la yoo xam ne dañ koo jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci réew mi nga xam ne moom mooy réewum France loolu nag bu amee dafay aajowoo ñun jullit ñu xam lan moo war a mën a nekk sunu taxawaay fi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa lay jéggi ab tànkam ngir mën a jàll loolu wax na ko xaddi jaaltuhu turaaba naalihi yaa laytani laxadani bi fadlihi nee na sama lex dama koo def mu nekk suuf si nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di teg aw dàllam kon kooku jëloon na léppam jox yonent bi sallallahu alayhi wa moo waral nag lépp loo xam ne wax nañ ko wala ñu def ko mu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun jullit war nañ ci am taxawaay waaye képp koo xam ne da wax ne sëriñ bu mag bi mooy sab sëriñ moom koy tuddoo loola jàpp naa ne aajo a nga xam ci lan moo war a mën a nekk sa taxawaay loolu nag daf ñuy yóbbu ci ñu waxtaane kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ndax xam yonent bi ak xam wàccuwaayam ak tolluwaayam dana tax ñu xam fan lañ koy teg yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi bu ñu delloo ci alquran al karim ak ay ahadis danan fekk ay mbir yu baree bari yoo xam ne day wane wàccuwaayam la ca jiitu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sangab doomu aadama yi doomu aadama yépp nga xam ne suñu boroom lépp lu mu bind doomu aadama la ci gën a fonk ki mu def mu nekk seen ab sang mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ëllëg bu ñépp di dekki di jóge ci seeni bàmmeel kay njëkk a dekki moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa waaye mooy ki nga xam ne sunu boroom moom la jox ràmm bu mag gi lu ñu tuddee shafaatul kubra nga xam ne ëllëg bis penc bu ñépp nekkee ci jafe-jafe nekk ci njàqare mooy ki nga xam ne sunu boroom naa naan ko sal tuuta wasfaatu shafa laajal lépp laaj ñu jox la ko waaye soo ràmmuloo it ñu ràmbuloo la waaye bokk na ci liy wane wàcc waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy moom la sunu boroom tànnal pàkk bi nga xam ne mooy pakk bi gën ci pàkk suuf yi nga xam ne néegam bi jiitu ba njëkk fa la ko teg te mooy inna awala baytin wudia linnaasi lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lil aalamin boobu fa la ganee àdduna ba suñ boroom daal di giñ ci pàkk boobu ngir lan ngir dëkk ga fa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëkk ak gane gam fa ganee àdduna te mooy laa uqsimu bi hada albalad wa anta xillum bi hada albalad kon loolu day wane wàccuwaayam ak màggaayam leneen li nga xam ne day wone màggaayam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bu ñu delloo ci alquran al karim da ngeen fekk ne mboolem yonent yi bu leen sunu boroom di woo daf leen di woo ci seeni tur mooy daf leen di sàllal maanaam day jaar ci seen aw tur gis nga yonent yàlla isa da ngay dégg sunu boroom ne yaa isa inni mutawaffika wa rafiuka ilay bu fekkee yonent yàlla zakariya da nga dégg mu ne yaa zakariya inna nubashiruka bi gulaam yonent yàlla yaxya nga dégg mu ne yaa yaxya xutil kitaaba bi quwwa yonent yàlla daawud mu ne yaa daawudu inna jacalnaaka xalifatan fi l ard yonent yàlla muusa mu ne yaa muusa inni stafaytuka ala nnaasi bi risalaati wa bi kalaami yonent yàlla ibrahim mu ne inna ibrahima kaana ummatan qaanita gis nga yonent yooyu yëpp bu leen suñu borom di woo daf leen di wooyee seen aw tur waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàccuwaayam ak màggaayam ak fonk ki ko suñu borom fonk tax na bu koy woo ko sàllalu même bu fekkoon sax daa def loo xam ne alquran dafay ñëw di ko yett da ngay dégg mu ne ko yaa ayuha nabiyu lima tuharrim annabiyu la koy wooyee muy yonent bi wala mu ne ko yaa ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka nga xam ne foofu rasul la koy wooyee ba tey mooy ki nga xam ne dañ koo yebal léeg-léeg feneen nga dégg mu ne ko yaa ayyuhan nabiyyu ittaqillah mooy yow yonent bi ba tey loolu la koy wooye léeg-léeg nga dem feneen sax mu wooye ko abd mooy sama jaam nga xam ne ñun ñëpp jaami yàlla lañ waaye dafa am jaam ñoo xam ne dañoo def seen ay santaane borom bàyyi seen ay tere ba suñu borom ne ñooñu samay jaam lañ ñooñu nag la ñuy tedd tedd ak la ñuy màgg màgg daf caa seppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kii moom mooy sama jaam bi ma gën a fonk moo tax nga dégg mu naan subhana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladi barakna xawla boo demee ca sóoratu najmi nga dégg mu ne fa awxa ila abdihi ma awxa léeg-léeg nga dégg mu ne wa innahu lamma xaama abdullah nga xam ne boo xoolee barab yooyu yépp da ngay gis ne sama jaam la koy wooyee moom su borom léeg-léeg boo demee ci alquran sax mën naa tudd turu muhammad waaye buy tudd aw turam du ko sàllalu foofu waaye daf koy lënkale ak risaale gi mooy muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar wala léeg-léeg nga dégg mu ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama annabiyin wala mu ne wa maa muhammadun illa rasulun qad xalat wala mu ne wa amanu bima nuzila ala muhammad nga xam ne buy tudd yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom su boroom fonk gi mu ko fonk ak wàccuwaay bi mu ko jox tax na du ko sàllalu waaye mboolem ñi ci des bu leen yàlla di tudd daf leen di sàllalu beneen bi liy wane wàccuwaayam moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent yépp ñi ci suñ borom gën a fonk ñu leen di tuddee ulul azmi mu yonent yàlla Muusa yonent yàlla Isa yonent yàlla Nuux yonent yàlla Ibrahim ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp xam nañ ne yonent yooyu yëpp ñoo fi jiitu yonent yàlla muhammad ndax mooy yonent bi nga xam ne moo mujj ñëw te ak yonent du amaat ginnaaw bi leen suñu borom di tudd di wax dëxal boo xam ne jël na ko ci ñoom ci ne ñoom day danan kennal yàlla te duñ ko bokkaale ak dara waaye li leen suñu borom jottali doo danan ko jottali yonent yàlla muhammad moo mujj ñëw moom la yàlla mujj yónni waaye bi mu tudd yonent yi ña ca gën a foor yonent yàlla muhammad la njëkk a tudd wa laqad axadna min annabiyina misaaqahum wa minka wa min nuuxin wa ibrahima wa muusa wa isa bni maryam wa axadna minhum misaaqan galida beneen bi ci liy wane wàccuwaayam ak màggaayam moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne sunu boroom dafa jël aw turam lënkale ko ak turu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne dañoo jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci liggéeyal ko ñooñu de yàlla sunu borom la ñu jaayanteel beneen mooy képp ku yonent yàlla muhammad dañ ci yow yàlla nee na ma dañ ci yow ku yonent bi dañ ci yow rek yàlla dañ ci yow baraatun min allahi wa rasuli ila alladina aahadtum min almushrikin waaye képp ku génnee këram te yàlla tax koo jóg sunu boroom nee na kon yonent bi moo la tax a jóg kon képp ku yonent bi tax a jóg rek yàlla moo la tax a jóg wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulih summa yudrikuhu lmawtu faqad waqaa ajruhu ala allah beneen bi sunu boroom ne saa yu ngeen wuutee ci dara na ngeen ko delloo ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax delloo ko ci moom mooy delloo ko ci yàlla sunu boroom te mooy la mu wax ne fa in tanazatum fi shay fa rudduuhu ila allahi والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا nee na bu fekkee gëm ngeen yàlla gëm bis penc nee na lépp lu ngeen wuute na ngeen ko delloo ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loola moom moo gën a rafet ak mujj beneen bi ci liy wane màggaay wala wàccuwaay bi nga xam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ko mooy ki nga xam ne bu ay mbir amee mu di ca farlu ba am lu mu ca gis loo xam ne sunu borom daa ñëw di ko gàgganti ne ko nii nga ci gise kat nii nii la waroon a demee sunu borom bala mu koy wax la mu def danaan ko jéggal naa la ba pare doomu aadama bi nga xam ne bu defee dara bala nga koy wax la mu def danga naan ko jéggal naa la ba pare mooy kooko sopp nga ko bëgg nga ko te mooy la mu wax ne afa allahu anka lima azinta lahum xatta yatabayana laka alladina sadaqu Euh, beneen bi mooy màggaay ak wàccuwaay bi ko sunu boroom jox wala mu am ko moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tax na mu wàcce aw saaru lëm woo xam ne dañuy jàngal naka la war a tegginoo ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen wax ne gën ngeen yàlla ak ab yonentam te mu nekk dëkk ci yéen nee na bu leen jiitu yonent yàlla muhammad ci dara te it nee na bu ngeen toogee ak yonent yàlla muhammad bu leen yëkkati seen kàddu mu féete kaw kàddoom waaye yit nag bu leen woo yonent yàlla muhammad di ko sàllalu comme ni ngeen di wootantee ci seen biir daal wax ne yëkkati gi ngeen yëkkati seen i kàddu muy féete kaw kàddu bu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën naa yàq seen ay jëf te du ngeen ko yëg ña nga xam ne nag ñooy suufeel seen ay kàddu bu ñu nekkee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne suñu boroom def na ci seen xol ak ragal yàlla te ñooñu am nañ pay bu rëy da tax na lépp lu laal ci moom loola dafa war a jaral ab jullit ndax day sëriñ bu mag bi di sëriñ Tuuba radiyallahu anhu moom day dafa doon wax ne képp koo xamante ne si wax nga lenn lu ñagas wala lu ñàkki teggin mu jëm ci sama sang di yonent yàlla mu Muhammad doon xam teggin ak sama xalima moo tax gis nga ca Musaylimatul Kazzab lan la wax dalla musaylimatu xiina jaara man fi l ard man fi sama wal ardi laa yujaara dillata man wasata almalata gawata wa baala uryaanan wa jahran darrata nga xam ne sëriñ bu mag foofu boo doon tekki baat yi ju olof nii rek daanaka da koo melal melokaan yoo xamante ni si daanaka danga naan boo ko jàngee ndax sëriñ Tuubaa kon dana lu mel nii maanaam ci xeetu ko waxee noonu mooy kooka dëkk bu mu dëkk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak laal bu mu ko laal kon mbokk yi ñun ñëpp nañu delluwaat jàngataat yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay dundam loolu mooy waral suñu taxawaay ak suñu xol lépp ñu man koo jël jëmale ko ci moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moo doon kàddu yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi aljalil alqahar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 آله وأصحابه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا عباد الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال أيضا اغتنموا خمسا قبل خمس خذوا من حياتكم لموتكم ومن صحتكم لشغمكم ومن غناكم لفقركم wa min shababikum li haramikum wa min faraagikum li suxlikum wa xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu wa zinu bi miisaani shariati jamia amalikum fama waafaqa minha bustaasa shariati fatuumu alayhi wa ma xaalafahu fatuubu minhu wajtanibu wa alamu anna ma fi l axirati xayrun wa abqa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 وحقوق العبادة كي تسلم لكم القلوب من شؤم الذنوب ورين التبعات وعليكم ألا تزالوا خائفين ودنين مسفقين من خاتمتكم لأنها غير معلومة لكم وخطرها باق مع الحياة وفي الخوف منها شغل شاغل عن الاهتمام بغيرها لأن الخاتمة تتبع السابقة wa man xasanat saabiqatuhu salimat xaatimatuhu jaalana allahu wa iyaakum mimman sabaqat lahu min allahi alxusna mbokk yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam daf ñuy jàngal ci addis bi nin war a jàppe suñu àdduna ak suñu àllaaxira nin war a dunde àdduna ndax suñu àllaaxira bañ a loru ndax dafa wax ni àdduna ak àllaaxira ay wujj lañu koo ci gërëm loo ko ca des mer ginnaaw nag ñaari wujj lañ yoo xam ni koo ci féetal ka ca des mer war ngaa xam nooy àndee kenn ku nekk ci ñoom ba jox ko akam la mu moom ba du lo bu mer te ka ca des du loru loolu nag la jàngal ndax àdduna dafa gàtt gàtt goo xam ne kii boo ko dendalee ak àllaaxira mi nga xam ne du jeex du dara loola tax Sëriñ Tuubaa liannaha faaniyatun wal faani laa shay'a walaw balaga gaayata al ula nee na àdduna day jeex te luy jeex du dara lu mu koowee koowee koowee moog lu dul dara ñooyam ndax saa su jeexee mel ni mosu faa am kon na ki lay jàngal ni ngay boole ñaar yooyu te muy ki yàlla yónni ci ñun mat naa déglu bu baax dafa wax ni àdduna boo fi nekkee na nga mel ni kuy tukki jaar ci dëkk ku wal sa mburu yor say bagaas takk say bagaas laxasaayu di tukki romb dëkk boo xam ne jëmoo fa defe naa ne boobu dëkk du la jaral summi sa mbubb defe naa ni boobu dëkk du la jaral euh, euh, euh, tekki say bagaas xanaa kay bu fa ndox bu sa ndox jeexee nga jënd fa ndox te jàll bu sa yóbbal jeexee nga jënd fa bu yóbbal te jàll bu saw dàll daggee nga defar lu ko fa te jàll waaye nag defe naa du la jaral lenn nee na nañ jàppe noonu àdduna boobu wax nag wax bu ëmb lu bari la bu yaatu la boo xam ne borom xel mu ne mën na cee jëriñu day wane ne àdduna ku ko jëndee àllaaxira da ngay nax sa bopp te da ngay juum ndax ñi nga fa amoon ñëpp tey ci waxtaan lañ mujj buñ ci misaalee kenn muy na dund na juróomi téeméeri at ci nguur te bopp méttiwu bëtam bii tegewut ci lu mu yëlifut mënta dox ba génn kilifteefam juróomi téeméeri at mu di ko dund ci loolu bopp méttiwu ko tegul bët ci lu miin ana mu tey tey ci waxtaan rek la mujj bu ñu koy waxtaanee day mel ne lépp te kenn du egg foofa nag kon loolu mooy wane ne du dara kon nañ ko jàppee noonu di tukki jaar ci dëkk dëkk boobee du la jaral dara bàyyal xel dëkk ba nga jëm loolu leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallama eh, jàngal muy loo xam ne ku ne mën nga see jëriñoo te ku ne mën nga see jëlee ngërëmul yàlla li muy waaye ko ne man nga cee jëlee merum yàlla wala iyaazu billah te merum yàlla lu mat a mooy tandiku la ngërëm moom lu mat a dabu la ndax wa ridwaanu min allahi akbar nee na loo am ngërëmul yàllaa ko ëpp mu mu mu mu gën la ngay am lépp ci àjjana moo ëpp moo dàq àjjana waaye mer miit lu mat a moyu la ndax nee na su ma meree damay rëbbu yonent bi salaa sallam nee na suñu borom nee na ci hadiisul xudsi nee na su ma meree damay rëbb te su ma rëbb sama rëbb day topp xeet ba ca juróom-ñaareelu sën kon wal iyaazu billaah yal nañu yàlla musal ci rëbbam te may nu ngërëmam alhamdulilah alladi yassara ala ibadihi almuminina al umur alsaaba bitibaaci nabiyina muhammadin alladi tabaa allahu ala alxayri qalba sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi alladina ittabau ma jaa bihi fa saidu wa rabixu wa asxaabihi alladina aalanuu bi sunnatihi wa mataxihi fa mudixu wa muyizu bi xisaali alkamal fa qaal wa ma arsalnaka illa rahmatan lilaalamin wa qaal aydan qul innama ana basharun mislukum wa nahiika bi hada aljalal bi qawlihi taala إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما أعظم هذه الخصال وصلى عليه هو بنفسه كما, كما صلت عليه ملائكة قدسه وأمر بالصلاة عليه عباده الموصوفين بالإيمان وذلك غاية الكمال وقال تصريفا له وتكريما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما fa salli llahuma alayhi wa ala jamii ma lahu min al asaabi wal aal wa man tabiahum bi ihsaanin fi lxaali wal maal allahumma anfa'na bi mahabbatihim waxsurna fi zumratihim warzuqna alqiyaama bima yajibu lahu min altaazimi wal ixtiraam maa anna mahabbatahum fardun akiidun ala al acyaan wa sartun fi sixati al iimaan wasma'u qawla allahi taala قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى يغفر الله لنا ولكم